léegi ba ñu dugalul ci liste bi. d' abord non xalaatuma loolu. wala ba ñu dugal ci liste bi pour la forme sànni la ca ca ca. avant daare ah, non xalaatuma loolu. ah bu ñu ko defoon nag looy def. non xalaatuma loolu. non xam naa ne xalaatoo mais si jamais ça arrivé looy def. li may def moom xam naa ko mais xalaatuma loolu c'est-à-dire fi mu ne nii may ma ma positif rek. <laughs> dundee yaakaar. may ma ma dundee yaakaar rek. <laughs> xam naa ni kenn ëpp coow. ñee. may ma ma dundee yaakaar. xam nga ñoo toog di def conférence de presse ne public SN rek na ñëw toog. waaw ci conférence de presse boobu. <laughs> man donc am naa rek reporter. donc te nag yaa nar a nekk journaliste bi parce que nag 24 heures ah Aram Fall lañ koy defal jour boobu. cum kon ko ndaw lu rëy. ñu xam ni ñu wo xaaral ma noppi parce que nag mbir yi day day niru chantage wala menace te loolu lay bañ. dañaa yëpp lay wax ni yëpp moom nga fi def. <laughs> baal naa la bañ li nga wax chantage yi menace nga sa paa bi waxal ak moom non paa bi naa waxal moom paa bi faw man nag ay deux mille bidon ma laa mënul ah mais fu xeex bu toll daf koy laaj ah waaw la bokk ah ci la bokk ci la bokk mais mais addu sunu sunu sunu sunu sunu temps jeex na parce que wax naa damay dem bain bi nii donc euh, euh, euh, est-ce que doo fa jaara tàggawala waale tey moom tey moom jëloo ma sa temps moom. waaw tey moom jëloo sa temps du ma du ma mer. waaw tey moom doo mer tey jour bu mag la. waaw parce que ba APR di APR ba léegi musuma déposé dossier pour une candidature. waaw waaw vraiment. je n'ai jamais demandé. de poste je n'ai jamais été demandeur. Ah. te musuma toog di rang ci ay bureau ñu naan ma damay déposé. dossier loolu dëgg la musuma ko def loolu dëgg la. dafa jot nag waaye. moo tax cette fois ci. Mhm. ma bàyyi ba lépp jeex. Mhm. teraanga yi amatul lu ñuy xëccoo. Mhm. ma yëkkati dossier dem teg déposé. comme ñëpp. pour ñu boole ma sax siggil ma sagal ma boole ma ci 15 premier yi te wallahi suñ ko deful duñu am majorité ngay ah billahi wallahi wa taala euh adus li wax ni sa grand barke sallallahu ala muhammad nga ni bu la waa APR deful duñu am majorité ah suñ majorité adus ah, bu ñu ko yakal ñooñu Aris bi ñu la dugaloon ci quinze premiers yi. du da nga doon sangu. waaw man damaa fanaane téye course. tey sa course dama ko ragal nag sa course moom ñeme ma ko. léegi nag. Aris ah, suñu majorité bu ko fawee de suñu majorité. du ma ko fawee majorité du ma ko fawee. Ah, mais dinaa waaw laa xam man APR man ca ca ca ca. yee yow la ñuy euh, kon xaaral ma waxaat nag ndax euh, bu leen fooyee Adama Fall mii Adama Fall xam naa ko xam ngeen ko lu baax li may waxal fii xam naa ne feeg lëndi moom Aliou ñëw te boobaa lu ne lay tekki. Hmm. te euh, eh, bu ma bu ma wane de. de man dama li ma métti rek mooy. <laughs> li ma métti mooy addis nar ngaa yëngal dëkk bi. <laughs> li ma gis bu ñu rek du ñëw nii mais suñu majorité addis bu ñu ko yàqal. parce ay. calcul xam nga ah. dama lay wax moi j'ai refusé toutes sortes d'offres. pour ces élections législatives parce que j'ai dit duma après la banque, mhm. duma en liste et tu as été honnête et loyal. j'ai refusé une troisième position sur une liste nationale. Mhm. borom alal borom daraja Tac table Tac, Khalis table mhm. man ni liste. ni <laughs> mooy ba nga toogee xotti foto Macky Sall ñu ngi ma koy rappelé tey addis ay fi ñu jëm ak addis te yàlla xam na ni hmm. je pense pas que mu demee noonu ah bi gëmoo mais nag objectivement nag dama xamul objectivement nag hmm. ñoom ci ban base lañ naa teg bu ñu écarté parce que yow addis yow mais yow yow risques yi ngay jël mais parce que nit ñi dañuy fowee ñu dañuy def ni mais mais mu sell mi jàkkaarloo moom ragal du ko def ah. te jàkkaaru nag balaa bu doon gën a neex. Mm. ma dugg biir hémicycle. waaw man wax dëgg yàlla man man dama naan chaque année ma am samay sama ay candidat mais ren moom yow la ak euh, sama frère bi Abdou Karim Xuru Xara Abdou Karim Gueye Xuru xaraa mais nag problème bi mooy foofu kii bi nu mu tuddati cagnotte bi doxul.